waa bokk yi kon gis ngeen seen euh, première partie ci Mame Matar Ndoumbé Diop Mame Matar Ndoumbé Diop nag réew mépp amee nañ ko njukkal ndax bay na waaram ba mu jotee te ku baax ci réew mi mbokkam nga ndax euh, Matar Ndoumbé Diop wax dëgg yàlla daaray kokki ja tey jii boo fa demee di nga xam ni suñu maam jooju la mu sampoon dara yàquwu ca eh, ñu leen ñuy sant nag ñoo xam ni dañoo bokk ci club xam sa bopp te club bi fi mu ne nii nag day bëgg yaatu waaye tey ñu ci tànn rek ñoo xam ni suñuy xarit lañu eh, ku ñuy wax eh, Cheikh Fadel Fall ak soxnaam Kiné Diop ñu dëkk Ndar eh, Cheikh Fadel Fall ancienne gloire bëgg lool émission démb di ñaanit sëyu doom bi yàlla na ci yàlla def barke et ñuy santit koo xam ni moom it ci club bi la bokk di Adja du Ndiaye nekk fii ci poor bi dëkk Liberté un ak Adja Mbow moom it nekk ci port bi dëkk Gibraltar ñoo xam ne du ñu dañoo bëgg lool émission démb kon nag euh, ki leen doon présenté émission bi di seen xarit élagital Ngol Ngol ñu di leen jox daje incha allahu beneen yoon ci beneen numéro jërë geen jëf. so happy to love, so happy to love.